alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah bokk yi ñu bokk sant borom bi subhanahu wa taala seere na amul benn buur bu ñu war a jaamu bu dul moom noo ngi baalu àq ñëpp te di leen baalu àq tey ñaan buur bi subhanahu wa mu bokk ñu jéggal ñu ñëpp bokk yi ñoo ngi leen ñu ndokkeel ci guddik démb gi ñu koy wax guddik laylatul qadar mu doon guddi gu màgg goo xam ne sun borom subhanahu wa taala moo ci wàcce alquran ina anzalnahu fi laylatil qadar wa ma adraka ma laylatul qadar laylatul qadar xayru min alfi shahrin nga xam ne alquran ci la wàcc waaye nag tanazzalul malaikatu war ruux guddi la goo xam ne malaayka yëpp danañ ci wàcc ba ñu ber ruu ruu nag ñee jibril am ñeneen ñu wax isa am ñeneen ñu wax yeneen ak yeneen kon muy guddi gu mag goo xam ne tiw euh, tënkin yàgg nañ ko fee leeral mooy ni nga xam ne moom la ko sëriñ bi tënki muy duunaka ya man laylatal qadri taruum euh, nasman bi ma xaka ahlul ulum bi ma xaka ahlul moo lay xamal ne nag lu fi sëriñ tubaa fekkoon la muy dim nal arab yi way na ko comme ni ko sëñ bi waye waa danoo bokkut ziira ak uslu bi jëfandikoo waaye même bu feeñee nangam bu feeñee nangam ñoom ñaar ñoo ci bokkale ñu mu ko indee ak yeneen ni borom xam-xam waaye nag bu ñu demee ci sunna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégg ngeen la mu waxoon ci xadis ba ñaar fukki fan ak juróom ñaar laylatul qadar kon la Abu Talib al Makki waxoon ne euh, kenn ku ci nekk bu weri teroo ba ngay wari jàppal na guddi gu nekk laylatul qadar la su boobaa rek da ngay jàpp ne réew guddi gu nekk laylatul qadar moo waral ba ci bu ngeen demee ci Touba gi rek Gédé waa Gédé Bousso ñoom ñaar fukk ak juróom-ñaari la ñuy màggal sëriñ bi moo leen ko digaloon te loolu tamit ci sunna la bokk kon noo leen ci ndokkeel bu baax di ñaan suñu borom nangu ñaan yëpp lépp luñ ci ñaan rek yàlla na ko yàlla nangu yàlla nañ ko fekk waat ay déwéni déwén ceen ànd fekk ànd ak tal ak man ak yor bokki suñu xutba tey nag mi ngi jëm ci jeexitalu weeru kool xitaamu Ramadan. jeexiteelu weeru koor mooy sunu xutba tey mbokk yi démb ci lañ toxoon fii di séntu weer ngir bëgg a um koor tey jii nag ñu ngi waaj séntu weer ngir génn ci koor gi bil amsil qarib nastaqbil kon loolu liñ ci war a jàngate mooy kon fan yi ñu mujj yi ñu nekk jàpp leen ne ñu ngi ci sunu fan yi mujjantelu koor waaye liñ ci njëkk a xool mooy gaawaayu bis yi ak guddi yi ak bëccëg yi kon nag képp ku yàlla dogal nga fekke koon ko te am tal ak wér ca woor ko sant ko borom bi subhanahu wa taala te xam ne yàlla moo ko jaglee ci yow am nañu ko fekkee taluñu ko mënuñu ko attanuñu ko defuñu ko kon bu la ko yàlla tegee ba nga man ko tal ko fekke am loo ca mën a jëfandikoo na nga delloowaat borom bi subhanahu wa taala njukkal waaye ñu boole ci nag jaamu yàlla ak jàng alquran mi nga xam ne suñ borom moo ko wàcce ci guddi gi laylatul qadar ñu war a taxaw seetlu nag taxaw seetlu bu ndaw mooy ban mooy kenn ku nekk ci ñun war ngaa bàyyi xel gaawaayu romb waayu guddi yii ak bëccëg gi ci weeru koor ndax démb nga doon séentu ngir um tey nga bëgg a séentu ngir wari loo ciy jàngate mooy dund gum tàmbali rek am na fu muy yem ku judd danga nga kon ak dundut am na fu muy tàmbali am na fu muy yem ne weer yi amee fu mu tàmbali am fu muy yem noonu la dundu doomu aadama am tam am fu muy tàmbali am fu muy yem war nga cee jàngate tamit ne ni guddi yii ak bëccëg gi gaawee noonu la dundu doomu aadama gaawee noonu la dundu doomu aadama gaawe ma waral ab diir ngay dégg rek diw gën na jamono nga toog ab diir ñu ne diw faatu na loolu nag kenn ku nekk ci ñun da cee war a bàyyi xel romb waaye gi weeru koor yi di dàmb ca nag bis bu xasa dem moom dootu delsi weeru kooru daawoo bokkut ak ren wi de bii beneen weer la ca bii bu demee sag dund weer manqué na ci ay fan manqué na ci am at manqué manqué na ci ca weer yi du ñëwaat fan yi du ñëwaat at mi du ñëwaat kon loola war mooy lan góorgóorlu ci jaamu yàlla na góor góorgóorlu ci jaamu yàlla kenn ku nekk ci ñun na nga bàyyi xel sa borom na nga bàyyi xel sa digganteeg sa morom àdduna bu mu la yàqal sa digganteeg sa borom àdduna bu la yàqali sa digganteeg sa morom àdduna da nga fi romb rek nii weer yi rombe jàll yeneen weer di ñëw noonu la doomu aadama bi di rombe ci àdduna adduniyaa mar wal axiratu maqar bokk yi may dénk sama bopp di dénk ñëpp ñu gën a góorlu ci lépp loo xam ne dañu may ngërëmal yàlla ñu gën cee góorgóor yi di ko def balaa deewee ñëw lépp loo xam ne buñ ko defee am ngërëmal yàlla bokk yi loolu nañ ci góor góor balaa deewee yow ku xas faatu moom faatu nga ay tiyaaba moo la fay fekk waaye jëf jeex na wa arqabul ashyaai lil amwaati raddun ila dunya maa alxayaati walaw suwayatan faqat li yaamalu saalihatan tanfaahum in qafalu sëñ tubaa nee na ñi ne ci biir bàmmeeli tey jii koo ci fëgg na ko loo gën a bëgg danaan la dellu siwaat adduna donta asca gis nga ni nga ko tasxiira walaw suwaya donta asca jëf lu baax faatuwaat moom laa gën a bëgg fi ma tëdd ci barshaqul muminin loolu li ñu ci mën a jàngate mooy dara du fa doy kon kenn ku ci nekk mbokk yi na nga góorgóorlu waaye bayt ba ci topp tegtal faxtani man baaqiya umrin qad mada fii xayri taatin walil xayri inhada kon li des ci dund gi nga xam ne faatu ñëwagul yow miy dund na nga góorgóorlu buur jëm ci topp borom bi subhanahu wa taala kon nag maa ngi koy dénk sama bopp bun na rek weer wi jeex na wala ñu sàggan ba ñëw wëlbatiku jëm ci suñu borom subhanahu wa taala moo tax sax sama nee na ki am xel dëgg mooy kan mooy ki wàcce boppam ba noppi cay jëfal li nekk ci gannaaw waa wa amila li ma baadal mawti wa amila li ma baadal mawti mooy di jëf lu baax li nga xam ne bu ëllëgee danga ko fekk barzaqul muminin waaye nag nee na ki perte dëgg ki ñàkk xel dëgg mooy kan mooy ki nga xam ne dafa topp rek ba kanam lu ko neex def lu ko neex wax ne ci lu ko neex ba dee dikkal ko ci bokk yi àdduna ku képp ku ko jàppee kër amoo kër képp ku ko jàppe tamit xarit amoo xarit la tarkan ila dunya wa ma fiha fal mawtu la sakka yufniina wa yufniha i'mal li daarin gadan ridwaanu qaadinuha wal jaaru ahmadu warrahmanu nasiha kon koo jàpp rek jàppe ko kër rek amoo kër alquran nee na képp ku jëf lu baax fa man yaamal misqaala charra xayran yara wa man ya'mal misqaala sharra sarran yarax ëllëg ku def lu baax gis ko ku defit safaanu lu baax gis ko kon nañ leen góorgóorlu ci def lu baax maa ngi dénk ba tey ji dénk maa ngi dénk sa bopp ba nopp di leen dénk yéen yéen jullit yépp liñ tàmmoon di ko def ci weeru koor muy julli ji ca jàkka ya ci mbooloo rikk bu weer wi jeexee nañuy dem ca jàkka ya di julli ji mbooloo waxoon naa ko ci xutba bi weesu naafile yi moom ñett ak ñeent ngay gis waaye kumte gi ñëpp ñu bare ñëw am na ci loo xam ne bokk yi ak tayel rek la moo tax ñuy cere nit bu dogee di lekk ni aw nag di lekk waa baaduhum yakulu akalal baqar wax fu waxta futuur yi sëñ Tuubaa nee na ñooñu laa yaxtawi fatila du du du wala laa yaxtawi ajra du am ab yoon kon li ñuy bëgg mooy nga lekk lekk gu yem ba mën a dem ca jàkka ja dem wuji woote borom bi subhanahu wa taala kon liñ tàmmoon ci biir weeru koor ci ay jaamu yàlla rawatina jullik mbooloo ay waay bu ko kenn bàyyi képp koo xam ne yàlla dogal na weeru koor taxoon nga tàmm ko boo déggateeg nodd bàyyi lépp loo jàpp nga dem julli ji nañuy génn kër yi di julli jàkka jii jumaa jii tabaxun ko ngir mébal tabaxun ko ngir jumaa jàkk rafet dañ koo tabax ngir julli si waaye toog ki sa kër wala nga dend ak jàkka ji dëkk ak ji ngay dégg nodd gi suba ak ngoon ak tisbaar ak takkusaan ak fajar dara tax a jóg dem ci jàkka ja julli ji war ngaa seetaat sa bopp bu doon loolu kon jàkka jërul def fenn jàkka defuñu ko fi ngir de jàkka jàkka rafet wala jàkka jàkka jàkka ji dañ ko fee def ngir julli ji jumaa ji dañ ko def ngir julli si kon képp koy dégg nodd bi ca dëkk ci koñ bi war nga bu waxtu julli juróom juróom jotee foo dégg nodd gi lépp loo doon def nga bàyyi ko ñëw julli si waaye dañ tëdd ci kër yi rek toog tayee la dem lali sijaada yi lal nangam ak nangam ca benn ngant ñu ci bari amuñu ngant lu leen tey ñëw jàkk bu ngant amee sax xam na ne la kon liñ tàmmoon ci biir gi bokk yi muy julli ji mbooloo nan fexe ba bum dañ beneen bi ci des mooy jataay xam-xam yi nga xam ne ñu ngi koy dundal ci weeru koor képp koo xam ne daa nga teew ci jataay xam-xam yooyu nga gis barab boo xam ne ña ngi fay teewal jataayu xam-xam ya nga mën faa dem demal nga jaruñu ji fa bokk na ci jataay yi gën a am njariñ jataay boo xam ne tiyaaba képp nga ca jëlee ak xam-xam jataay yooyu bokk yi ku yàlla dogaloon nga ci daan teew nga gis fuñ koy defee bu koor ga jeexee soo ca mënee di teew damal nga teew ja bokk na ci loolu ba tey mooy jëflante bu rafet bi nii jëflante ñun doomu aadama yi ci biir muy doxu bokk gi joxe ñam yi dégg nga sarxa bi saafante bi dimbalante gi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir weer koor yi bu weeru koor wi jeexee bu mu tax ñu dagg ko yàlla nekkul rabbu ramadan képp rabbu suhur yëpp yàlla mooy buuru weer yëpp kon bu jàpp na suñu borom weeru koor dong la ne kon jëflante yooyu ñuy jëflante ci weeru koor muy muamala xasana yooyu dimbalante bi dégg nga jaxa ñam yi kenn ku ci nekk di seet sa bopp sa sa mbokk ak di doxuk bokk bu weeru kooru jeexee bu mu tax ñu dagg ko nañ ci góorgóorlu bu baax a baax nan ci góorgóoru baax may dénk sama bopp ba nopp di leen dénk ne nan tàggatoo weeru koor gi kem nin teeroo woon weeru koor wi bu ni tàggatoo weeru koor yi nan ko tàggatoo comme nin ko teeroo woon nin ko teeroo woon nag mooy ñaan ñaan li gaa baax yi daan def buñ woree dañuy juróom benn weer dañ koy toog di ñaan yàlla fekk laat leen weeru koor kon nani ñaan na ni ñaan borom subhanahu wa taala ci rawatina ci guddi yi ñu ñëkk ngir ñi ngi waaj a tàggoog moom ca kenn ku nekk ci ñun xamoo boo tàggoog moom ba noppi ndax déwén danga la fekk wala doo fekk kon nin ko jotandoo woon rikk waaye nan ko tàggatoo moom muy ñaan ak julli ak jaamu yàlla ak def lu baax yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadin noonu ko sëñ Tuubaa gatandoo woon waaye tax buy demit nan xam ne nan ko tàggatoo tàggatoo boo xam ne mooy raw sax biñ ko gàttandu xam na xamal na ko yaa ngi dem waaye doylu doylu ci yow yaa ngi dem waaye weeru weeru tab weeru ngëneel la weer woo xam ne boobu bi nga bi nga eggsee lan ubbi buntu ajjana yëpp ubbi buntu sawara yi yaa ngi dem waaye ba xam xamuñu déwén dana dana dana la fekkaatam déet yaa ngi dem waaye waaye jaamu yàlla gin doon jaamu yàlla si biiru weer koor ak ni ñu ko doon dund ci biir naafila yeeg sadaq yeeg yooyu xamuñu boo xam suñ kàttan daan ca tollam déet yow weeru koor yaa ngi dem waaye xamal na doyuluñ ci yow ñu tàggoo ko noonu mbégte ak xol bu sedd kon loolu bokk na ci li nga xam ne bokk yi nin ko gatandoo woon nan ko tàggoo noonu bokk nag ma di leen fàttali asakay mburum koor asakay mburum koor asaka joo xam ne bépp jullit boo xam ne yàlla man loo la ko lislaam dala koy génneloo képp koo xam ne yaa ngi dund ci weeru koor ci weeru koor nga xam ne yow yaa ngi ci biir weer yi waaye laata weer yi faatu woo boo xasee faatu moom wàcc na la waaye bu fekkee ne yaa ngi dund ci biir weeru koor ci faatu woo asaka ji dala war xatta liir bi jul judd ci fajar ci jul te demaguñ ca jàkka ja di julli ji liir boobu waaye juróom da ko génne wala asakay mburum koor liir bi julli ci fajar ñu war a xëy dem julli ji julli korite liir boobu bu fekkee ne demaguñ ca ca jullikaay ba waaye juróom da ko war a génneel asakay mburum koor asakay mburum koor buñ demee ci al mazhab imaamu Shafii wal mazhab imaamu Malik doona wax li ëpp ci li ngay dunde ci nga koy génne senegal nag li ëpp lu fi dunde mooy ceeb kon ku koy génne ca man koo génne ceeb bokk na ci li gën soo koy génne yaa ngi koy génne ci saa yonent bi sallallahu alayhi wa waaye saa boobu arba am daat la mudd mooy nii waaye buñ koy génne ci arba am daad yi dañuy xool loxo yoo xam ne ñoo gën a digg doom loxo yi yooyu gën a digg doomu nag biñ ko xaymaa dem na ci ñaari kilo ak ganwaa libar kon kuy génne te man ko na nga ñaari kilo ak ganwaa libar dagan na tamit ci nga génne ko ci xaalis bu dee ci mësa ma Malik moom Malik dafa waxoon ne lu dul li ngay dunde doo ko génne doo ko ci génne bu dee ceeb ngay dunde ceeb bu dee pep pep ñun bi ñu ci daara ji pep lan ko lañ ko daan génn lañu ko sëñ bi daan génnele bu dee looy dunde te ma xam na loolu moo rek ngay dundee ci xeet yooyu ma wax muy xeeti suuñoog saañook bës gi mel noonu su boobaa ci nga koy waaye mazhab bi ak fi xam-xam toll dem nan ba ne loolee kat mënees na ko xayma ci alal génn ko ci asakay mburum koor li waral it ñu di ko génne mooy yonte bi sens dafa wax ne ngir ñi nga xam ne mënuñu ko kenn bañ leen a mee ci bëccëgu korite gi kenn bañ a laaji kenn bañ a def dara ànd ak nit ñi bëgg asakay mburum koor it bokk yi li tax ñu di ko génne mooy nit ki bu wooree léegi-léegi mu rëccile wax lu jaaduwut wala mu def lu jaaduwut wala yu mel noonu su boobaa génne gi mu koy génne daa bokk ci li lii li fan li li kafaara yee nga xam ne ay ñaaw ñaaw leen moo tax kenn ku nekk ci ñun su la ko yàlla mën loo nga def ko am ci borom xam-xam yi wax ne yaram dafay am ñu tuddee zakatul badan ñu tuddee ko zakatul badan am na ñu ko tuddee mag da koy génne gone da koy génne jigéen da koy génne góor da koy génne kon kenn ku ci nekk ci ñooñu da koy génne waaye kenn ku ci nekkit ka nga xam na yaa yor ab dundam di ko dundal yaa ko war gën génneel asaka muuru koor ba ca surga ba ci surga bi nekk sa biir kër di liggéey nga xam ne ci sa dund lay lekk yaa ko war a génneel asakay murum koor bu fekkee ne say jur yaa leen di joxeel dépasse yaa leen war a génneel asakay mburum koor buñ ko mënalee seen bopp ba def ko fay la alhamdu sa soxna si ngay dundal bu ko mënalee boppam génneel ko boppam baax na waaye yow la war yaa ko war koor surga bi ne ci bii kër gi di liggéey di liggéeyal di dund ci saw ci saw ñaq yaa ko war a génneel asakay mburum bu ko génneelee ci alalam baax na kon ñooñu ñëpp yaa leen war a génneel asakay mburum koor yow boroom kër gi dagan na tamit ci mazhab imam malik bu nee korite des na benn fan nga génn ko bu nee korite des na ñaari fan nga génn adakay mburum koor kon képp ku ko yàlla man loo nanga ko def maa ngi dénk sa bopp di leen dénk ay waay nañ leen góor góorgóorlu jëm ci lu baax bala ñoo fee laxasoo jëm ci biir bàmmeel yi ku xas tëdd bàmmeel xamuñu saa kañ lay taxaw xamuñu kañ lay yàlla di atte mi def yi donte suñu borom wax na ne adduna lu mu yàgg-yàgg dana jeex te ku xas dem dootoo dellu si ñi demoon ñëpp kenn dellu si woogul te kenn ñëwagul nettali la fa xew kon nañ leen góor góorgóorlu ngir ëllëg maa ngi koy dénk saa bopp di jéem a jëf jëf ju baax tey bàyyi xel ne lu yàgg-yàgg bisa ngi ñëw téere yëpp dañ koy talañ takk kenn ku ci nekk sa jëf ñu jox la ko te nit bu xasee dugg bàmmeelam lam daan def lépp dañ koy takk fii ab téere tekkal ko ci biir ci doxam gi sa yu buftu bi dikkee bu walee ñëpp ay dégg arab dégguma araab moom adduna la am waaye ku faatu dugum jógóor ci bàmmeel langue arab bi sax du bi ñuy làkk biir bammeel a luqa suraani yàlla niy làkk foofu te ku faatu suñu borom roof la ko nga man ndax mam nga wax ak ña fa nekk ko nañ leen góorgóorlu ci tuub nañ leen góorgóorlu ci tuub ak jéggalu borom bi subhanahu wa taala li fekk ñu ngi dund ci kaw suuf adakay mburum koor maam lu ma ci fàttali yow mi tukki ca nekkoo fi fa nga nekk nga ko war a génnee joxe ko fa su yàlla dogeelee it ñi nga fa nga jugee ñu mën la koo génnee nit baax na boo dee ci ma daw na imaam Malik nee na dagan na musaafir bi fa mu nekk mu génn fa asakay muurum koor boppam joxeel ko waaye nee bu fekkee ne mënu ko dana dagan ña nga xam ne ñooy ak njabootam ñu génneel ko ko ci seen ci seenu dëkk kon ñi tukki ci nekk ci àll bi fu mën a nekk ca mën ko faa génne joxe ko fa fa lillahi alhamdu waaye suñ ko mënut a génn foofu mën ko faa joxe dagan na ñu wax seeni njaboot yi nga xam ne ñoo nekk fii ñu génneel leen ko joxe leen ko yàlla na nu yàlla dafa dégg ak topp yàlla na nu yàlla dafa dégg ak topp yàlla na nu yàlla dafa dégg ak yàlla bu koor gi nekk suñ mujjanteelu koor yàlla bu koor gi nekk suñ mujjantelu koor lépp luñ fi jaamu yàlla na ko yàlla nangu lépp luñ fi ñaan it yàlla na ko yàlla nangu yàlla na nu yàlla jéggal suñuy bakkaar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 yaxfirullahu lana wa lakum wa li shaari muslimina amin